Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de d'abonner, merci également gars du bail c'est commentaire. commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information un mbokk sénégalais fait fu ne mënti nekk 14 régions du Sénégal à de këpp ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également qui lal hôpital l'hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ñi nga également ñi ngi ci kaso yi te erreur judiciaire yóbbu leen fa suñu borom génn leen fa te gàdd leen ci seen ñi nga également seen i jëfaleen fa yóbbu suñu borom teg leen ci yoonu dëgg te ñu jub ci jubal leeral ñi dëddu àdduna suñu borom xale àjjana fi doo yéexiñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV. week-end décisif na gars pour Sadio Mané fik Mané ak ki nga xam ne Liverpool ak Bayern de Munich loolu la ñuy wax ay leeral indi ci wax leen également fan la situation bi toll et tout en tout cas week-end bii nii la lépp war a mën a leer yi mais d'abord, abord ki nga xam ne nag Gab nekk le sélectionneur de euh, la l' Égypte moom nag dañ ko daal di dàq bi nga xam quelques mois rek ñu daal di koy fal fi mu Égypte ñu ngi wut entraîneur bu bees waxoon naa leen ko jamono ji ñoom ñu ngi ciblé ki nga xam aussi moom mooy Thierry Henry waaye également ki nga xam ne nag moom moo entraîneur ah hein, di Carlos Rose moom dañu bëgg xolal ndax mën na dellu si ah, donc loolu yëpp nekk lo xamné ay tractations le tournoi UFA bi également wara am du 28 août au 10 septembre ci Nouakchott pour qualification donc Coupe d'Afrique U20 yi donc ji li gaynde yi war nañ dem fi nga xam mooy Mauritanie fa lañ koy amalé disputé nak tournoi bi ñom Liberia Gambie ñom ñëpp ci lañ daal di bokk gaay nak Premier League ba mu amee ba légui nak bal yi lañ doon footballé de 2000 à 2022 ballon baa ngi ni 2002 2000 bi lañ doon footballé ba 2022 gis nga nak bal yi moy bal yi nga xamné mom Premier League seen saison bi ni mom lañ doon footballé moy bi mu donc nek lo xamné aussi dañ leen ko doon wanaale mais aussi coupe du monde 2026 war amé ci États-Unis entre autres ak Mexique mi dëkk yi nak lañu tann ni Los Angeles Dallas entre autres hein, San Francisco Bay Area et tout dëkk yi lañu war li coupe du monde 2026 Inshallah, yalla ñu ko fekkee té tal ko stade mooy stade yi nga xam fi la ñuy defee seen football seen championnat yi ak football américain ak également seen football moderne bi ah. donc fa lañ koy defee nekk stade yoo xam ne ñoom waa États-Unis ak Mexique aussi commencé nañ présenter li nga xam ne nag mooy infrastructure yi di wane ne ñoom pare nañ déjà pour daal di koy accueillir ci rappel nag euh, ki nga xam mooy Maroc bokkoon na sax si candidature boobu mais xam nga rek gars yi après donc waa États-Unis Mexique ñoo gagné mais Maroc donc 2030 bi aussi bëgg na déposer candidature am ñi ngi doon wax nag euh, candidature jumelée entre ñoom Portugal ak Espagne et tout donc loolu si la nekk ba léegi coupe du monde bi tamit aussi il faut ñu indi leen ay leeral mooy que ki gagné coupe du monde bi gars yi 42 millions d'euros ngay am ki jël deuxième am 30 millions d'euros loolu la ñu budget bi nag maintenant na ay 117 millions su ma jumul doo dinaa ci est ay mais ce qui est sûr mooy que 42 millions ki gagné le ngay am 30 millions ki gagnent deuxième ki a xam ne Marie Antoinette Katoko nekk joueur Paris Saint-Germain moom nga xam ne contrat am di jeex presque ah, donc du côté de Paris Saint-Germain moom nag dafa génn waxagul fan la job mais nee Paris Saint-Germain ba fi Qatar ñëwee ba léegi gis Amour amul Amour yi am mooy war nañ toogaat suñu biir waxtaan xool lan mooy problème exactement alors que am nañ moyens donc lors la joueuse parisienne moom moi wax mais Skriniar n'a gars yi nañ fi mu ah, donc selon les médias italiens que c'est fait du côté du Paris Saint-Germain que mon Paris day fay 70 millions pour mon palais daal di fay ñëw Skriniar donc défense Paris Saint-Germain donc de déwoon gars il faut am kenn ku dem ba muy diggante ki nga donc mon Marquinhos ak Ramos ak aussi kii di Ousmane kii mu tudd Kimpembe pendant ce temps nag Juventus ak ki nga xam ne donc Di Maria seen discussion ne ñu que c'est arrêté woon parce que Di Maria ben année de contrat la bëggoon Juventus ne ko deux années la koy defal fi mu ne nii dafa mel ne déggoon nañ Juventus pare na présenté contrat bu un an pour mon palais di fay daal fay jouer ñi ngi wax nak ne ki nga xam moy donc Mauricio Pochettino donc tay ji ni wala ëllëg inshallah le Paris Saint-Germain di annoncé ne dakh nañ ko parce que trouvé nañ accord à l'amiable ñi ngi wax nak ki nga xam moy mooy Zinedine Zidane ne ñom lañ waxtaanal mais également ñi ngi wax Galtier bi nga xam mo moo nekk Nice momit ya ah donc démb l'équipe nee euh, Paris Saint-Germain def na premier contact yi à Savoie Ilaix Moriba waxon naa leen ko mom na xam nga Barça la nekkoon ñoo ko jaay Leipzig fi mu ne nag Leipzig ñom dañu bëgg a débarrassé wu ci boy bi donc allons nañ ko Valence saison bi ni donc mom nak 18 millions la ci wa Leipzig di laaj

équipe bi nek également benen jour ap également bo xamné warna dem muy Sadio Mané donc image bi ñom ñaar ci même maillot bi bama matul bi ngeen koy mujjé gis muy Sadio Mané ak Divock Origi Sadio Mané bi nga xamné nak nag donc il devrait faire ses adieux donc équipe bi di Liverpool gis ngeen ko jënd nañ Darwin Nunez et que Sadio Mané donc il a donné son aval sur le principe ak ñi nga xamné moy wa Bayern de Munich contrat nak bu 3 ans moko fay xaar salaire bu 20 millions par an donc aussi hein, donc transaction bi nak ñu ngi koy natt gars fimné ni ci 45 millions au total bonus tout conclu compris mu daal di ñëw fa nga xam ne mooy du côté de Bayern de Munich fimné nak weekend bi waxon nañ ko nee semaine bi lañ ñu dajé donc weekend bi wa bill nee nañ si la ñu war muy dirigeant bay bavarois ak également dirigeant wa Liverpool continue continuer ko ba début de semaine pour dadi décider concrètement donc am aval et gars yi nañ sur le principe bo matu ñi gëna gën ah, ñom ñaar donc naa leen weekend bi la finaliser wala au pire des cas début de semaine prochaine Sadio Mané mëna dem def visite médicale am du côté de l'Allemagne bu ko deful ci weekend bi def ko ci semaine bi di ñëw dadi di parafré contrat am moom mi nga xamné ne les dirigeants bavarois mom lañ def priorité am actuellement aussi ñu ngi commencé sax waa Bayern di libérer seen yenn joueurs yi di leen porte de sortie ki nga xam ne nag moom mooy donc Lewandowski Bayern nee na ku leen fayul 50 millions minimum minimum ah 40 millions au pire des cas duñu la bàyyi dem Barça def na ñaari proposition bi mujj 32 millions la gars yi bañ mais Sadio Mané actuellement dal. mom jël nay sagam def ci saag bi nga xam moy talent am ak lepp fas jël avion bi inshallah rabbi dem du côté du Bayern de Munich le club bavarois bi nga xam actuellement c'est le club le plus titré en Allemagne et l'un des plus grands clubs du monde nek équipe bo xamné aussi mom li di coupe du monde Ligue des champions bi moy priorité bi déwoon renforcer nañ seen milieu de terrain ñi ngi renforcer également seen défense bi entre autres ki nga xam ne mooy Salihamidzic mom il a d'abord discuté avec Belz Bezemer hein donc moy le de ki nga xam ne Sadio Mané. Et que pour le Bayern, c'est clair, Sadio Mané, il sera au cœur du jeu de, l'équipe du Bayern de Munich. Qui Nagasman également, il veut repartir sur son système ancien, oui, 3, 3, 3, plutôt, 3, 4, 3 le la bëgg 3 4 3 le bëgg a tegaat muy système bi nga xam ne la doon doxale fa nga xam moy donc du côté de RB Leipzig bamu ñëwé nak Bayern sét nañ né donc 4 3 3 bi la gënoon privilégié mom nak il veut repartir sur une défense à 3 mais d'abord il faut mom attaque bu solide également pouvoir jouer sur la vivacité sur la rapidité notamment de Sadio Mané bi nga xam ne nee na na ci pion yi ko daal di manqué les gars c'était les informations que je voulais vous donner hein. toujours un plaisir de vous servir comment vous voyez également Sadio Mané au niveau de Bayern de Munich nan lañ ko wara mën utiliser ban poste ngeen gis mom wara jouer like wooy di abonné toujours un plaisir gars yi de vous servir jaa ngeen jëf.